mi ñu permettre tey ñu fekkee bés bi encore comme ni ñu daan fekkee yeneen yi mais également euh, ñu sant président Macky Sall mi nga xamante ne ni euh, à travers l' administration ñoom ñoo organiser état ñoo organiser élection yi ba mu jaar ci yoon. Euh, mais également sant ko ci li nga xamante ni lépp defal na ko ci réew mi ba mu egsi fii tey tey mu war a joxe lenge yi ki nga xamante ni moo ko war a succéder ñu ñaar yàlla mu nekk premier ministre Amadou Ba. Euh, di wax ni rek ni euh, am nañu impression boo xamante ne ni bu baax la ndax gis nañ ñi population ñi ngi génn di voté jigéen ñi particulièrement gis nañ leen ak mag ñi ñi ngi génn di voté di ñaan yàlla euh, affluence boobu continuer ba 18 heures incha allah yàlla may ñun ndam au premier tour. waaw jàmm ak salaam ci la lépp xaj defe naa élection yàgg na fi am Sénégal am na tradition bu mag boo xamante ni nii élection yu normal na ñuy tenir tey defe naa ni warul demee neneen lu dul mu jaar ci yoon et que gañe gagné ñu ñaan yàlla mu nekk suñu candidat pour que et que également ñu respecter li nga xamante ni moo génn ci urne yi jërë ngeen jëf. 103 739 355 Obrigado.